ban ban danga danga ban période ba ban période la ñu waroon remonter d'après d'après yow. non man pour man euh, mën nañu remonter xam nga dañuy wax une gestion bu ñu remonter wu ci même pas ci gestion Ablaye Wade nañu ba ñu remonter comme ba ba Macky Sall commencé au moins parce que Macky Sall commencé 2012 bari na ñi nga xam ne tey ñu ngi tëgg seen dënn ak di wax dañ leen di jox affectation foncière yu dul jeex dañ leen di jox affectation foncière yu dul jeex ñu am ay kayit mu leer. kon tey bu ñu dikkee bëgg a topp ñeneen ñi nga xamee ni que dañu 2020 la lañ leen jox suuf nag te ñoom ñu jël lu jiitu loolu avant wax dëgg yàlla day nekk euh, une justice sélective parce que bu dee euh, infraction infraction la bu dee euh, inégalité inégalité bu dee lu jaarul yoon jaarul yoon kon nag pour man digg xool fi li nga xamee ni xëy na yow du la laal trop nga bëgg ko càmbar bàyyi li nga xamee ni tam tamit boo ko boo ko boo ko boo ko xoolee diig ci Euh, defe naa ni bokkul ci la nga xam ne parce que le débat sur le littoral mu ngi commencé en 2015 2014 2015 le président euh, Macky Sall wàcc ci littoral bi njëkk euh, indi ay mesures ba ñu arrêté woon la construction de l'ambassade de la de la la Turquie. non non jiitu ko sax débat bi depuis Abdou Diouf débat bi am na. non je veux dire ci la ci la affaire bi gën a prégnant. non Ablaye Wade ci boppam bi muy soog a ñëw fii. def na fi ay tournée ci littoral bi ànd ak Pierre Goudiaby pas ak ministre de l'urbanisme ànd ak ab à l'époque Amadou Ba directeur général des impôts et domaines def nañ fi plusieurs fois dem xool littoral bi xool naan que lii jaaduwul lii jaaduwul bañ ko waxee terewul ginnaaw bi ils ont profité du sommet de l'OCI pour lotisser wala dagg ay suuf def fi ay hôtel Baobab def fi Radisson def fi extension teeru bi. les villas présidentielles les villas présidentielles xaraf et cetera euh, ak euh, waterfront ak yeneen kon nga loolu aussi Ablaye Wade ma taxawoon ci sa sànq tubéyam ni ko day xeex loola par la suite xëy na gis nañu suuf si euh, am na koom-koom dugg nañ ca ba def ca lu jékki jado bi Macky Sall ñëwee même chose la def. arrêté na fi ay ambassade mais terewul tey tuuma ji ci suuf bi ak suufu corniche bi jolli na maintenant li nga xam ne am na ci suufu corniche bi euh, nu nit ñi amee man ak nu ñuy amee man xaw ma ku jaar yoon ku jaarul yoon xaw ma man sama bopp laa man a xam mooy dara yàlla suturaal na ba nga xam ne ma cee jox mètre carré mosuñu ma koo jox feneen. au niveau de la corniche. waxuma la corniche ci Sénégal yëpp ba mu daj mosuñu maa jox mètre carré suuf ba nga xam ne état moo ma ko jox du Ablaye Wade du Macky Sall kon tey man sama baat ca kaw. mais vous êtes dans de de de je suis dans le domaine de ma solo am attribution foncière de la part de l'État du Sénégal ma ne la mosuma koo am état du Sénégal mosuma jox mètre carré suuf suuf bu ma am dama koo jënd te gis nga nag li nga wax ma dafa am solo xam nga bu ma nekkee investisseur dans le domaine de l'immobilier hmm, war naa am droit laaj ko mais justement mas naa ko laaj dañ ma ko joxul ma jox la un exemple gis nga tey boo boo rombee corniche bi di nga gis fi benn immeuble bu ay chinois yi defar R plus 35 dak taawo lañ ko tuddee mhm. projet bi noonu maa ko jëkk am Sénégal xam nga kañ la 2014 j'avais un projet sur l'avenir Cheikh Anta Diop que j'appelais immeuble pharaon le pharaon noir Cheikh Anta Diop sur l'avenir Cheikh Anta Diop un terrain que j'avais identifié ma dikk defar un projet d'immeuble de R plus 35 boobu j'étais accompagné par une banque si euh, turque qui s'appelle Asia Bank ma defar samay plan Thiaw Kandji mooy sama architecte mi ngi may dégg ma dépose ma dikk seeti président Macky Sall ni ko j'ai ce projet là je suis accompagné par des investisseurs la, la banque Asia Bank banque Asia Bank ko xamul moom nag actionnaire bu majoritaire la ou important ci banque islamique du Sénégal c'était des Turcs bu mu dikkee mu xool projet bi ñoo xam ne c'est intéressant boole maag l'architecte conseil du palais madame Diouf mu xool projet bi ma c'est intéressant mais fi nga bëgg état daf ci prévoir leneen mën nañ la jox jam ñaaju ma ne ko déet madame jam ñaaju moom c'est pas rentable bu ngeen a mënee jox daal ngeen jox ma euh, Dakar fa nga xam ne mën naa ko rentabiliser parce que si je fais un investissement c'est pour une rentabilité économique et commerciale ñu ni ma boo gisee suuf nga wax on peut voir ma identifier benn terrain fan résidence j'en ai parlé avec le président il m'a dit non la ko mën a jox bon ma tànqam lu ko hmm, ma bañ ma continuer ànd ak un investisseur sénégalais mi ngi may dégg mu tudd Moustapha Sène ah moo nekk patron Sahel Gaz il travaille dans l'immobilier ay bureau ma ngi nekk fii à côté ci ce service Moustapha Sène ñu ànd def suñu ay projet immobilier sur des terrains que nous avons ciblés au centre ville de Dakar ñu ma seetiwaat Mbacké Sall ak samay maquette ak sama lépp wax ko ko mun ah, bon dinañ ko xool ba tànk ci suba mujj ni ma dégg naa terrain yi ñu ciblé woon ak immeuble yooyu ñu ciblé jox nañ ko ñeneen ba ñu def ko ay immeuble kon laaj naa mais joxuñu ma bi nga xam laaj dañ ma joxuwuñu ma nag ba ma xam nag ma ne nag xëy na dañ maa damaa bokkul <laughs> Sénégal bu war a am ci li ñuy am ma defali sama yëfi bopp jëndal sama bopp donc man j'ai investi terrain bu ma mas a am mètre carré bu ma mas a am dama ko jënd fay ko devant notaire am sama titre fay sama ay droits et taxes. mais à à l'époque euh, 2000 euh, je pense que c'était 2019 da nga sonné woon une une une violente charge euh, Yakham Mbaye tontu woon la en disant. que dans Dakar Thiès xaw ma fan am nga plus de cinquante neuf titres fonciers que justement da nga laaj joxuñu la loolu moo tax nga leen di nga leen di charge cest à xam nga ba mu ko waxee yaa xam ci moom laajaat laa ndax dootu la ko wax parce que booba à l'époque la ma waxoon dama ciy delluwaat dama ne ils ont fait pire que avec nos terres boo tapé internet di nga gis sama article boobu yëngaloo loolu dëkk bi effectivement jour boobu article bi ne Macky Sall daf maa mu woo directeur des domaines à l'époque qui s'appelle Mame Boye Diao toogoon woon man ak moom de waaye ba ma génnee dugg na parce que man li wax dama ko ñeme ma taxaw xam nga boo dikkee par exemple ñu am na ñu ngi fi génne woon naan que way dañu yónnee ma jàmbal benn notification et cetera moi j'ai jamais accepté de signer un bail avec un terrain de l'État Mame Boye Diao mi ngi may dégg musuma ko si musuma signer bail non mais non mais cest ba ñuy joxe terrain terrain yi ñu joxe nañ ko joxe man jubluwuma ma jox la beneen exemple ba nga xamante ne nga wax day am seede ah bande filao bi bi ñu koy def Habib Niang bi mu nekkoon ci euh, euh, euh, Pikine man sama la bi may wax ba nga may dégg sama benn rakk bu tudd El Hadj Dia dem na fa di waxtaan woon ko mais man sama ma jàmbal bëggoon naa nga defal ko teraanga mu woo ma ni ma noo yéen nag may jox carte d'identité ma defal la benn kii ma ne ko doy na soxlawu ma ko parce que bu bëgguma ko parce que bu ma ko jëloon tey taq ah mm-hmm. gis nga dama benn dama bind benn article euh, bërki boo Ndiaye sur saa pour wax loolu Mamour Diallo mi may dégg woo ma ñoom mais grand way ñu waxtaan noonu mu ne ma euh, ma ko bu leen ma fontoo joxe ngeen seeni suuf saax saax ngeen ko joxoo ma mun ma woy la joxoon kon doo mën a wax ah ma ne ko bu ngeen ma joxoon ma jël ci yoon c'est à dire simplement c'est à dire simplement que loolu yàlla xëy na yàlla laal na la xañ dara sax xëy na mu frustré la wala mu neex la mais da ngay fekk moo gën ci yow fekk tey am na ñooñu nii bu ma waxoon bu ma laaloon mètre carré tey fil lañ sama gémmiñ tey nag mën naa wax tey maa mën a taxaw ci télé bi may mun a Sénégalais yëpp di ma dégg ma ni musuma am mètre carré état kooku du du dëj du wax lu ko waxuma ko jikko bu ko wax fii de wax naa ko fu ne bind naa ko ci journal kenn du ma démentir. mais euh, quand j'ai annoncé l'émission. Mhm. pourquoi les gens ont tout suite fait la corrélation entre suñu émission ak. Euh, euh, l'arrêt des travaux au niveau de la corniche et dans certains lotissements et puis pourquoi dans la tête des, des gens cette mesure doit vous inquiéter non mais enfin peut-être li ñu ku nekk nga xalaat li nga xalaat xam nga yow émission bi depuis plus d'un mois yaa ngi koy xaar ah ñu ci waxtaan ma ne damay voyager su ma ñëwee ñu wax ci am déet kon xam nga ça n'a rien à voir avec le contexte la bari na ñeneen ñu ma demandé émission ah, émission ah mais j'avais préféré m'occuper d'autres choses ni bu ñu ñëwee on avait calé cette période-là. Mmh. donc ça fait plus de trois semaines on avait dit on va refaire ça ici est-ce que boobu Diomaye Faye tàgg woon nañu ni ñu <laughs> day day annoncé mesures yooyu. mais pourquoi donc, est-ce que les gens pensent que la mesure devrait vous gêner. non mais ku mu neex nga xalaat lu la neex. mais man taxaw naa ni gêné wu taxaw ni taxaw. mais mais non, mais mieux. vous avez des constructions yoo xam ne euh, elles elles peuvent être affectées wala. non elles ne pas affectées. j'ai aucune construction qui affectée. benn sama benn ko lañuy wax lu litige man awma lu litige te kilifa yi wax ci yor réew mi xam nañu ni man yoruma lu litige bu ñu ma yoroon lu litige kon ci man la ñuy jëkk dal man yoruma lu litige damaa jënd ay titre foncier am na ma ko war a amee bu may construire am sama utilisation de construction en bonne et due forme xam nga bu ku ñëpp di wut da ngay moytu ku mu neex da nga xalaat lu la xalaat nga dëkkale nit ki néeg yu la neex waaye nag du tere man sama jàpp naa ne sama baat ba dañ moo tax démb bi ma defee ma ni mais nañ def enquête boo waxee ma wax leen bu ñu yem ci deux mille vingt dama ne nañ def enquête sur depuis Ablaye Wade ci ku ci ku nekk li mu yor ñu woote lépp xam nga kon ku ragal ku ku ragal woote li mu yor du woote nañ def enquête man maa jëkk nañ def enquête woote depuis depuis jamonoy Ablaye Wade depuis deux mille nañ def enquête ñu xool kon bu bu ñu ko defee dina yuuxu dina ju dina jublu fu mu foogul. c'est ça la vérité c'est ça la vérité donc kon franchement. Euh, dama la wax léegi ni la yàlla dina la xañ dara xëy na sax mu naqari rek sa xol mais xëy na looloo gën ci yow. mais est-ce que tamit waruñu sensibiliser nit ñi yow investisseur na mm-hmm. Euh, ailleurs on offre des terrains pour que les médias érigent des sièges. mm tey ji tey pourquoi tey bu ñu retrouver woon sa sa tour dans une liste d' attribution mm-hmm. mbaa ñu retrouver sama tour encore que j'ai pas un mètre carré mm-hmm. <laughs> mu leer euh, pourquoi ça doit choquer les les les gens et pourquoi ñun on devrait nourrir le complexe mm-hmm. euh, voilà de de de de de bénéficier euh, d'une cession foncière de la part de l'État du Sénégal en tant qu'investisseur nga war koo utiliser aussi euh, pour pour pour, pour, non, pour faire un investissement ça, ça aussi il faut ñu dindi ko ci xelu nit ñi non il faut se décomplexer te xam nga lan moo ci am hmm? dama la wax xam nga man c'est pas parce que dama ragaloon ñu jox ma parce que bu ñu ma joxee rek bu ma dama ne dama am ay projet taxaw laaj ko ñu joxuñu ma ko mais bu ñu ma ko joxoon dama koy jël assumer ko en ah tant que sénégalais aw ma ci problème ci loolu mais joxuñu ma en tout cas Hmm? yàlla def na joxuñu ma mais dama la bëgg a wax ni la ñi nga xamee ne ñoo lay xarab wala di la joxoñ da seen jikko lañ lay jox xëy na ñoom bu leen joxoon ñu jël. gis naa ñu ñu ñu ñu doon saaga. te euh, di xas nit ñi te te te ñoom am nañ. ñuy xas amuñu. te ñuy xas amuñu exactement. <laughs> ñi ñuy xas amuñu xam nga tey tey xam nga tey yaa ngi ni man taxaw na la ma ne aw mais nañ kan wool keneen mu ñëw fii ne ndax am ne joxuñu ko am nañu xam ne dañu jox ay fukk cent dix cinquante tere te li ma la wax lu ma xam la te ñoo ëpp làmmiñ ci réew mi di wax donc seen jikkoo lañ lay jox wala xëy na ñoom jàpp nañ ni que boo nekkee un homme public wala nga am opinion bu wuuteeg seen bos il faut ñu xalab la il faut aussi qu'on respecte les gens il am na ku nekk dafa am dignité am na ñu nga xam ne aussi am na lu ñu jombale seen bopp am na lu ñuy bañ gis nga may mu la dama lay wax rek da nga xam ne ni dëkk bi boo jàppee ni que kenn gënu la fee sañ kenn gënulu la fee yey kenn ëpp lu fi ay droit ku loolu la fa war a la fa war a masamba war a def paate di ko fa def da nga koy def assumer ko taxaw jàkkaarloog ñoom du ma nangu nag man kenn di ma xoqatal wala kenn di ma intimider nga dikk par exemple def smartphone wane sama kër wala wane sama lii daf mas yëngal. man ba may ah, ba may xam nga dama lay jox un exemple dama lay jox un exemple quand par exemple en 1996 moi j'achetais des terrains à la cité Djily Mbaye le mètre carré était à 14000 francs ou 16000 francs à l'époque 98 ma jënd fa aujourd'hui un million may la fa le mètre carré c'est ça la vérité donc am na ñu nga xam ne gis nga boo dikkee yow nga yor sa smartphone te ba may am di yëngatu booba yow booba juddooguloo ah mais kooku est-ce que man bu ma dikkee man par exemple sama ku nekk du ma yokk ak du ma jëm kanam pourquoi du ma liggéey parce que dama ragal ñu tudd ma damay liggéey investir ci samam réew di ci wut teraanga pour sama bopp ak sama njaboot di ko bokk samay bokk kooku il faut pas avoir de complexe par rapport à ça te nag gis nga li ma lay waxal boobu bu teraanga bare noonu bare ñi ñu bëgg mooy ku tekkiwul wala ka nga yërëm nañ ko da nga koy xool sa bopp xool ko ci man natt ko ci keneen koo fi gis ñu xarab ko wala ñu topp ko parce que am na lu mu amut kala ko ka koy xas parfois am làmmiñ la ñuy mott mottali ko c'est tout mais euh, d'ailleurs j'ai aperçu ça dans les dans des images Euh, cet immeuble dont on parle la mhm. euh, mën nga ñu ci wax tuuti. non j'ai investi xam nga tu sais fii projet yi nga xam ne dañ ko fi wax fii yëpp c'est des immeubles à milliards. tu es accompagné de un investisseur il est accompagné quand il est crédible les gens qui font des ventes en futur achèvement c'est de l'argent qu'ils collectent de d'autres personnes moo tax là où c'est dangereux par exemple le projet euh, sur par exemple certains certains investissements da ngay ñëw kenn dina taxaw fii di defar yenn investissement yi tegoo ko ci yoon nga xam ne mën nañ la contrôler à tout moment wala amoo accompagnement bi nga xam ne moo ci war tey dama lay jox un exemple rek loolu mooy li ngay wax naan que est-ce que parce que xam avant bi émission bi lañ ko doon wax mais les risques économiques que ça pose mooy bi nga defee introduction bi tey boo ñëwee dans un secteur comme ça tu prends des mesures yooyu nii. euh, day impacter un investisseur qui a peut des partenaires sénégalais et des partenaires étrangers le partenaire étranger il a son ambassade qui veille sur ses intérêts et quand il y a par exemple un un un investisseur étranger son pays a signé un traité bilatéral d'investissement par exemple avec le Sénégal mais il a euh, un choix de juridiction en cas de contentieux ah, voilà. en cas donc xam nga tey boo amee benn <laughs> partenaire ba nga xamante tey xëy na bitim réew la bokk réewam bu dikkee di investir xëy na diggante ak Sénégal am na juboo ba nga xam ne une coopération bilatérale ba nga xam ne tey bu ngeen jotee moom day tànn ni ko man tribunal Sénégal duma àtte damay dem tribunal France wala bu Amérique wala tribunal sàngam moom laa tànn wala Genève wala nga xam ne kon gouvernement Sénégal du am ca du am ca moom benn sañ-sañ loolu dama lay wax ni la que moo liy man di sama moroom moo di tey fi mu toll nii immeuble boo fi gis dafa am un accompagnement bancaire des collectes de ressources privées ñu investir ak ñoom su ko defee nag tey boo fa tegee tey nga ni xëy na may mën a mi neexuma ko naa dal ci kaw boo laalee immeuble xëy na may mun a am lam ca am am na ca waaye ma sàmb am na ca ma dem ba am na ca xuja am na ca donc c'est ça le concept économique il faut que les gens comprennent que activité économique dafa am ak ngay investir di euh, collecter ay bénéfices di ko rechercher di wuti